bisimila mbokku internet yi dal leen ak jàmm coronavirus gi nga xamante ne jamono ji mu ngi lëmbee àdduna bi ba tey ci biir réewum Sénégal mi ngi wéy di tëral ak faat bile yoon te fa am na ndax kilifa gu mag ci réew mi ñëpp xam ko ràññee ko lañu wax ne bile yoon moom itam dafa am ma covid 19 Serigne Moustapha Sy njiitalu kuréelu Moustarchidine wala Moustarchidaat moom la ñu wax ne coronavirus ji daf koo dugg ci ni Sénégal di doxee nag boobule xibaar am na njort ne balaa yàgg dara dana siiw ci te wër àdduna bi bi te li ko waral du lenn lu dul daraja yi ki nga xamante ni moom moo am covid 19 bi di sëriñ Moustapha Sy bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jëlee ko ci ay fajkat jamono ji ñoom ñëpp tiit bay lox ci njàqare gu ñu am ci li naara ñëw ginnaaw tabaski bi ñu jóge ci demlante beeg ñëw bi dugg ak génn gi saafantoo gak lëngoo ñoom naka li ragal mooy ginnaaw tabaski bi ñu génn suñu moyuwulee dëkk bi ñu ci bari danañu am virus bi di covid 19 ndax li xew firnde la ci am déetali ci kanama nañu ne jamono ji ni covid 19 bi mi ngi ci biir nit ñi rawatee na sax dugg na ba ci kër kilifa diine yi ci réew mi ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ne équipe bu Tactic TV ñoom ñoo ko jëlee ci way fajkat yi ba tey même bu fekkee ne ñu ko ba ñëpp xam ko waaye nañu yëg ne lu ëpp ci lim bi faatu ci jamono ji ni ñëpp wala lu ca ëpp covid 19 bi moo leen faat rawatina ñi faatoo ci kër kilifa diine yi su dee yenn famille yi dañoo nëpp nëppal mbir mi fexe ba tey rusaange la ñuy gis ci bile feebar yeneen famille religieuse yi ñoom ñu ngi koy fësal di ko wane ndax ñoom jàpp nañ ne lii lu mat a xam la daanaka journal bi di leese ko moom moo génnal ab xibaar di ci siiwal ne ki nga xamante ne moom mooy sëriñ Moustapha Sy njiital kuréelu mustarchidin wala mustarchidaat dafa am covid 19 doomu jàngoro jàngoroy coronavirus ji nga xamante ni nii mi ngi lëmb réew mi ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaaru waa journal Les Échos suñu naatango yi ñu ngi xamle ne jamono ji sëriñ Moustapha Sy ma nga ca l'hôpital principal bu Dakar ñu koy toppatoo ak faj ngir mu wér ci covid 19 ji ñu ngi koy ñaanal yàlla féexal yaramam bu baax a baax te musal ñu ci doomu jàngoro ji jële ko ci réew mi ba faw ak ci àdduna bi yépp Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal